suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam ko xaaritoon jar doonaa bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. allahumma inni asaluka bi siri saati bi saati siri wa anta wa anta wa ihtajabtu bi nuurillahi ونور عرس الله وبكل اسم الله من حدوي وحدوي الله بما اتعال لا حول ولا قوة إلا بالله ختمت على نفسي وعلى ديني وعلى كل سيناتاني ربي بخاتم الله مني الذي ختم بي أختار السماوات والأرض وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بارك الشيخ موسى ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg bi Cheikh Adama Cissé mi nga xamante ni mooy kilifa jotaay bi ak mboolem rakkam di nuyu Cheikh mi nga xamante ni it jotaay bi ak mboolem taalibeem ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di wax ne kàddu yi day kàddu ndigal rek waaye ndigal nag moom taalibe du mën lu dul jëfe ko waaye sang yi fi jot a jaar di leeral ak sang yi suñ ginnaaw di ñu déglu wax dëgg fa yàlla liñ ñi sas nii ñooñu ko gën a mate waaye ku ñuy liggéeyloo moom dangay sant rek te jëfe ndigal li te xam ne mën naa am ka lay liggéeyloo mooy liggéeyee ci yow bu ko defee dafa am benn baat boo xamante ni moo tax yàlla amal ñu amee ñu yor suñu mbir di ko doxal mi baatu laa ilaha illallah nga xamante ni ku yàlla mos a yónni ci baat boobu la la yónni woon ndax yàlla dafa wax ne ëllëg lépp lu ma waaye indi lu dul lislaam danaa la ko delloo kon nga yëg ne bi ñu tàmbalee dukkat suñu ñaari tànk ci suuf suñu bopp féete ñu kaw benn bor lañ ameel yàlla mooy lislaam lislaam googee nga xamante ni nag moo moom moo tax yàlla amal ñu amee ñu ñu war see jeexal suñu dund damay wax ne amul temps bu nit war a mën a ñàkk dund lislaam ndax njëlbeenu doomu aadama lislaam moo jiitu ci moom séréan mais dundu lislaam di dundu lislaam di dundu lislaam ba ay mbir di ko feeñu ba fi mu jóge woon mi fay gën di lënt di lënt ci moom di lënt ci moom di lënt ci moom ba yàlla xëy wàcceel ko sëriñ wala ab yonent mu doon fàttalikat ci moom ndax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci jamono dafa wax ne alxuraan dafa ko wax ne ko fa zakkiri fa inna zikra tanfa'ul mu'minin waxalal waxu ko ne ko xamalal nit ñi mais fàttali leen la ko wax kon liñ lay fàttali loo xamoon la kon nga yëg ne nit ñi xamoon nañ waaye yëgoon nañ waaye gisoon nañ kiiraay gi doxaat nag seen digganteeg lañ xamoon ak lañ gisoon ak luñ yëgoon moo tax yàlla di wàccee ci jamono ku leen fàttali loolu wala ku leen ko wanaat wala ku leen ko yëgalaat kooku nag bu ñëwee ci jamono ak tur bu mën a tudd melo bu mën a yor jamono jooju noonu kooku mooy nekk borom jamono jamono joojoo moo tax ma ne luwaay yi mën naa wuute sériant yi mën naa bañ a bokk waaye loolu du solo si solo si mooy lislaam jaam ñi dañaa war a lijjanti ba xam toog nañ ci lislaam balaa ñuy lijjanti tarixa yi wala ñuy lijjanti luwaay ndax yéntu yàlla muhammad sallallahu salaa wasallam alquran moko wax ne ko yaati min baxdi ismu ahmad falammaa jaa'ahum bil bayyinaati khalu haazaa mubin mubiin te loolu bi ko alxuraan di wax yént yàlla isa yént yàlla isa di ko wax ay ñoñam ba alquran ñëw nettali ko ñun ñi di ko jàng kon ñun buñ bëgge wax ne isa tekkale na Muhammad Muhammad tamit wax ne kenn du am ngëm gu wér yàlla nee na kenn du am ci yéen ngëm gu wér loolu da ngaa gëm yont yim yónni woon ñëpp ma ne ñun buñ bëggee gëm xeesaa lan lañuy gëm ci xeesaa ba xam dem église la ba xam takk kurwa la ba xam naa ni sàngara la ba xam te dañaa war a gëm xeesaa di ndax buñ ko gëmul ci kéeféer lañ ne kon bu ñu gëm xeesaa ci luñ koy gëm ci lislaam lañ koy gëm bu ñu gëm aadama ci lislaam lañ koy gëm waaye luwaay yi nga xamante ni ñoom ñu ngi ko doon dund loi yooyu amul solo kon fi ñu war dajee ñun ñëpp te muy dajoo waay wi mooy lislaam moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ya ahlal kitab taalaw ila kalimatun saa'un baynana wa baynakum ala nahbudu ilallah ba mu koy wax Sëñ Tuubaa bindagul Alaaji Maalik bindagul kon yan borom téere la doon woo ñooñ tawreet ak ñoom leen jël ñooñu est-ce jullit lañ leen di wooyee tey wooyee wuñ leen jullit te ñooñu la yonent boo xam ne leen ñëw leen ci benn baat boo xamante ni man ak yéen ñoo ci bokk yem ñu ne ko ban baat la mu ne mooy baatu laa la illallaah waxoon ne lépp lu gën ci li may tudd ak yonent ya jiitu woon lañ doon tudd mooy baatu laa ilaaha illallaah Sëriñ Tuubaa yaxal ko ci mbindam ne amaa dawaamul zikri fa huwa akbaru min kulli maakaana murdi yukkuse lu gën ci li murid def mooy taqoo laa ilaha illallah xal xultu saalika bi laa israari wala ubbaali bi sawli inkaari maa ko wax yellawu ma ko waaye faalu ma ko ma ci weddi si Ibrahima yellawu ko bu koy doon yellaw du takk du takk rajo yi mu ne fa kullu man saani falil jiwaab xam ne wala tujjaar lu ëllëg kitab li ma wax képp koo xamante ni jaaxal na la mu ne sama lay mi ngi ci alxuraan balaa ngay dal wala tujjaar lu ëllëg kitab yàlla dañuy aqim salaata ndax ngeen may tudd ma ne kon ndeke jàmm ñi suñu ma a sax ci tudd yàlla sax jarul ñuy julli ndax loolu la wax julli leen ndax kon day mel ni ñàkk a tudd gee tax mu sant ñu ne nañ dem julli ji waaye lan la ci teg mu ne julli gi ma leen sant inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar waaye wala zikrul akbar julli dalay fegal lu ñaaw ak luñ sib nit ñi dàll yi ñemee yóbbu soirée ñemuñ kaa yóbbu jumaa ja ndax dañu bañ ñu sàcc ko kon du moom moo tax buñ lay joxeñ ngay xool baaraamu ki lay joxeñ doo gis lam lay joxeñ sëñ tubaa bi mu ñëwee ne Tuubaa texe la gaa yi dañaa dang-dagi uti paas kenn ku ci dekk uti paas romb Tuubaa ci sa bopp di ko wëri Tuubaa gi sëñ Tuubaa wax ne texe la du ñu paas di fa dem dañ koy def ci yow ndax texe kenn du ci dugg di paasaat di ci génn sayratan rek ni dee lijjanti ay million ubbi magasin wala ubbi entreprise am jël la ngay wuti ñaan ngir sax ci boo xam ne xamoo bu xaas bi jógee yow entreprise bu taxaw la ñu jël la ci rek ngay wuti ñaan ngir sax ci yow nga fexee lijjanti yow jaante ba dugg ci bu texe ñu la nga ne maa ngi nii dugg naa oto di da ngaa fay paas xam tubaab boobu la suñu tubaab waxoon waxul boobu waxoon dafa waxoon ne nga li mu wax boo xoolee rek dañ ko gis ne ne tubaab texe la li xam di ñeel mboolem jàmm muriidun bu namm saadixun te dëggal bi xidmatin bu ma nangoo liggéeyal aw bi hubbin wala nga soob aw diyaat nga jox addiya moo tax gis nga ñett yi mu wax noonu benn bu ci nekk dafa amaat ñett yu ko boot ñett yooyu boot ko nag mooy njëriñal taalibe waaye ban addiya la taalibe di joxe ak ban bëgg lay bëgg ak ban liggéey lay liggéey moo tax bëgg gi Sëñ Tuubaa woote woon am na ku ko wax fii léegi defe naa Alaaji Jibi Sey la mu ne suñ tubaab bu nit daan wax ak moom ba ne ko bu diw wëyee bu yàlla wëyee yonent bi wëy mu ne ko ma wëy kon waxul woon pour ñu bëgg ko waaye ñi bëgg yàlla la doon wax ndax moom moo xëy wax ne wa isaar ayta laa say an walam taraaw fii fa inna zalika si yakun hijaban baynaka bayn laahi tabaraka wa taala mu ne jàmm bi bu xoolee ba gëmmu nga ne ko gis nga mu ne waaw nga ne ko ba xam gis nga yàlla mu ne déedéet mu ne ko lam gis moo dox diggantam ak boromam ak lu mu mën a doon donte sëriñ la nag bu dee moom nga gis mooy sa kiiraay donte sa jabar la donte sa kër la donte sa oto la li nga teg sa bët daal te du yàlla looloo dox sa diggante yàlla kon jaam ñi li ñu war a ngéejowoo mooy lijjanti lu leen di muccal li leen di muccal nag mooy ñi xam yàlla ngir mën a dund tawhidu illaa ya ndax ku amul tawit doo mucc ku amul tawhid doo mucc nag mooy xam-xamu maarifatu billaahi bi nga xamante ni moom la alxuraan waxoon ne mooy xelmul yaqiin moom la doon joxañ ci alhaakumu takaasur mu ne boo leen amoon xelmul yaqin la tornaal jéem su ma la tornaay neel yaqin su la tus al ne masi naa na ne kon xelmul yaqin boobu la ñëpp war a uti te xam ne xaynul yaqin doyul xelmul yaqin doyul mais xaqul yaqin moo doy xaqul yaqin nag mbirum biir la mbee du mbirum biti bu ko defee ñu ngi jégalu bu baax si kàddu yi sëñ Omar Diall di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam ñoo ngi nuyu mbooleem jullit yu góor ak ñu jigéen yi kilifa kilifa yi nga xam ne ñoo yilif dëkk bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbooleem seeni njaboot euh, di sant yàlla bu baax di rafetlu itam kàddu yi ñii nga xam ne ñoo fi jóge li ñu wax doy na képp koo xam ne bëgg ngaa jëriñu ci yàlla sëñ Omar ñu lay sant bu baax si program bi rafetlu nañ ko jaar na ci yoon man naa jëriñ ku war a jëriñu wala ku bëgg a jëriñu yàgg ñi nga xam ne ñoom nga dalal fi kenn ku ci nekk bi mu ñëwee ñambaas na ci loo xam ne ku bëgg a dégg lu lay jëriñ rek maanaam dégg nga njëriñ di nuyu suñu kilifa ak bopp Cheikh Moussa Xuma xam naa sax euh, alxuraan day wax nay laa tarfon aswaatakum fawqa sawti nabi waaye li wette wóor mooy la woykat ba waxoon du maa di wax waaye moo dikk di wax waxande la wu ñu tëji wax suñ mebu bee may làmmiñam kon dañuy wéer rekk ci ay kàddum ndax li ne ci ñun ci moom lay balle du ci ñun lay bale kon des na sañ a wéer kon sang bi ñu ngi lay siyaar bu baax xuma di ñaan yàlla it jataay bii képp ku fi teew yàlla may la xel moo dékkoo kàddu yi di rot parce que kàddu la yoo xam ne la seex Moussa waxoon ne sama kaas bi nopp a koy naan mu jaar ci xel wàcc ci xol kon kaas boobu faw da am ndimbalal yàlla ci am xel mu ko mën a dékku ba nga mën koo naan mën caa jëriñu su loolu amul rekk amaana mën na la lor ndax li ñu woote jëlee ko ci suñuy sëriñ ñoom ñu jëlee ko ci Cheikh Moussa daf di loo xam ne foo ko wax rek mu mel ni dangaa wax lu bees te jamono bi ko yàlla amalee ba léegi bind aadama wàcce ko ci kaw suuf def ko muy kuutalam aadama moomu yàlla jox ko njoboot gu góor ak gu jigéen yu bare leer gii la ko jox pour mu sàmmee ko njobootam ba ñu mën a delluwaat ajjana ba nga xam ne fa la ko sunu borom dëkkuloo woon képp ku ñàkk leer googu dootoo mën a dellu ca ajjana jooja te kat mooy dëkkuwaayu aadama aadama moom ak njobootam seenu dëkkuwaay mooy ajjana parce que foofu la ko yàlla moomale njuumte moo ko indi fii kon kenn ku ci nekk ci ñun ñëw nga ci béréb boo xam ne li la fi andi mooy njuumte kon faw dañuy am koo xam ne moo ñuy gàgganti ba njuumte googa ñu daloon ñu fexe ba mucc ci mun a delluwaat fa ñu dëkk su loola amul rek mën nañu wéy te ku ne xam na ne ba ñu jógee àjjana wala aadama bi mu jógee àjjana fii mu ñëw ci ay fitna la fi ne kon fexe wuññeeku moo lay yóbbu ci jàmm waaye soo wéyee nag. da ngay gën a dajee ak fitna rek parce que ba mu génnee àjjana wàcc fii ci àddina daa ñëw fekk àddina di fitna yàlla wax ne bind naa sax doomu aadama yi ci fitna wala boog bind naa nit ci fitna injaan la wax waaye li wet te mooy soo wéyee fitna day gën a yokku rek kon fexe ba am ku lay dimbalee ku lay gindi ku lay teg ci yoon ku lay sàmm ba nga delluwaat arjana ba nga jógee wala ba nga dellu àjjana ba nga xam ne foofu nga dëkk mooy sunu kër maam ndax kenn ku ci nekk doomu aadama ngay tuddee sa bopp aadama moomu nag ñun ñu doon doomam yàlla da ko sàkk sàkk àjjana def fa mboolemi xéwal dëkkuloo ko fa mu war a doon dëkkuwaayam moom ak ay doomam waaye gannaaw fit na am na wu xam ne faw mu jaar ca moom jéggaluwaat boroomam ci gannaaw bi mu amee njuumte njuumte googu daf ñoo dalaale ñun ñépp ñi nga xam ne ñooy njobootam kon li war nit ki nekkee bu xasee ba wàcc ci kaw suuf yitteem yépp daf ko war a def ci dëppaat delluwaat fi mu fi mu war a jëm loola nag kan moo la ciy dimbale lan moo la ciy dimbale mooy faw nga am seexul bi bu xam ne day mel ni Seex Musaa njobootam nga xam ne buñ la woowee dara du leen yitteel ci yow lu dul nga tege ci yoon wi nga war a mën a tegee ba yegg ci siraatal mustaqim ba yegg àjjana ñoom loolu rek mooy seen yitte Cheikh saa nag ni mu wootee ak ñuy jottali ni ñu jottalee soo amul xel mii ma la wax seeni kàddu doo ko mën a dégg ba di ko jëriñoo parce que nit kuy dox yor ñaari tànk comme yow lépp loo xam ne moo te nit kooku yow da nga koy gis ci sa bopp mu yor ay bëtam xool ne maa ngi gis yàlla te yow boo xoolee mbindeef yi képp ngay gis te nga jàpp ne say bët feebarul wax dëgg yàlla wax jooju neexul la gëmm waaye nag mboolem ñi fi jaar ñépp rek loolu la ñuy woote waaye nit ki bi mu nekkee ci maqaama nit kese kese mënul gis boroomam parce que bu boobaa jëmm yi rek lay mën a gis waaye doomu aadama faw mu jeex ci yàlla damay wax ne yàlla bi mu naan nit ki maa la gën a jege sa buumu xol maa ngi ci biir nit su la ko yàlla waxee am na lu mu bëgg yow nga def ci xalaat parce que ku ne xam na ne yàlla du jëmm joo xam ne dafa xaj ci biir doomu aadama sa xol bi ci sa biir ki ci war a nekk déedéet dafa am lu yàlla bëgg ci yow yow ya wara jeex ci biir yàlla tak mais moom mënul jeex ci yow parce que kenn la ko xamne ni mu melak yow moo la melak kenn ku ci na ci jafay bi kon jeexut ci yow waye yow doomu adam bi da nga wara jeex ci biir yàlla ki jeex ci yàlla nak dootul gis dara lu dul yàlla jeex gogo nak mom lañu wut ci serigne bi serigne booba bo ci yeggee. dalay dàqal lépp loo xam ne jàppoon nga ko moo tax kii li Cheikh Moussa sax njëlbéenu wooteem dalay wax ne julli gu war asaka bi nga nekk sax du jaamu yàlla parce que dafa bëgg yow yaa war a nekk jaamab yàlla jaamab yàlla bi nga war a doon nag jeex gi nga war a jeex ci yàlla mooy tax nga am ko kon faw nga romb mbooleem tolluwaay yi nga tollu woon jéem a yéeg nag ci maqaama yoo xam ne da ngay jeex takk ci biir yàlla romb yooyee waaye su fekkee yaa ngi tag ci loolu ci diggante ndey ak baay ci dëkkandoor ya ci sëriñ bi ci jàng ci julli ci woor yooyu yëpp mbir lañ yoo xam ne soo jeexee ci yàlla takk da koy je da koy génn da koy romb dootuñu fa ne parce que li fi ne moo mën a doon jaamu yàlla waaye nit day dem ba yegg foo xam ne day génn ci yooye yooyu day jeex takk ci moom fa muy toll xàkka moom nekkatul koo xam ne kuy mën a maanaam jëfandikoo dara ci zahir lay doon lépp lu muy jëfandikoo rek léppam day jeex ci biir yàlla tag parce que am na loo xam ne yow mi koy gis ni koy gisee ki dem ba jeex ci yàlla moom na koy yëgee ci boppam ak yow ni koy gisee du benn moo tax moo la naan julli du jaamu yàlla nga ñëw fekk ko muy julli bàyyil xel nag sa julli gi ak jullim gi du benn parce que moom jeex tàkk la def ci biir yàlla ba muy julli yëgut sax boppam. bay yëg ràkka yi yàlla lay yëg te même bu noppee ba sëlmal xakka saa yàlla mooma lay continuer di yëg du yëg boppam du yëg ràkka ya mu doon def yow nag dafa am jamono joo xam ne li ngay yëg mooy maa ngi julli am jamono joo xam ne li ngay yëg mooy maa ngi woor am jamono joo xam ne li nga yëg mooy maa ngi joxe asaka wala maa ngi aj màkka xakka saa ki jeex tàkk ci yàlla nag yàlla rek lay yëg saa su nekk moom yëgul koor gi yëgul julli yëgul asaka yëgul dox bokk yëgul dara hatta bokk bi muy dox si yàlla la gis ci biir bokk ba moom la gis ci jàkka ji moom la gis ci jumaa ji moom la gis ci weer wi ni mu koy yëgee ci weer wi feeñ ñu ne weeru koor noonu la koy yëgee ci kullu weer noonu la koy yëgee ci bépp waxtu waxtu tisbaar ak waxtu wuñ nan timis ak gaye bu mu mën a doon rek waaye moom fu mu mën a toll yàlla rek lay yëg jeex googu nag la seex Cheikh Moussa woote. nga xam ne képp ku ko mos a wuy ji jeex googu ca ngay ne maanaam da ngay dem ba jeex tàkk ci yàlla di gisoo ko mën a gis yàlla su ko defee nag kiy gis jëmm yi dana gis say bët gis say nopp gis say cër lépp lu ko complété niroo koog yow lool moo tax boo ko ne maa ngi gis yàlla mu xool gisu ko mu weddi ko waaye yow sa gis gi dafa romb jëmmam ji yàlla mi toog ci biir jëmmam ji naan ko maa la gën a jege sa bu mu xool moom moom ngay gis yow parce que leeru yàlla sa soo koy gis fum ne nga gis ko motax Serigne Touba don wax nan yaral khafaya bi xay qalbi jairatan kama yu ma taxte akim dafa am lo xamne amna fo xamne foo xam yegu fa Serigne Touba di wax manam soufi souf est-ce que bëti zaahir mën na fa yegg te Serigne Touba nee na gis na yàlla ma fa tok kon da fay beut jëmm yi gis yàlla mi jeex mi ne ci bir jëmm yi yàlla mi ne ci ni yàlla nekkee ci suuf ni mu nekkee ci asamaan ni mu nekkee ci ngelaw li nekkee ko ci jaawu ji nekkee ko ci as lépp luy luy feeñ ci asamaan muy jant ak weer ak biddiw nam ci ca yàlla nekkee soo ne jàkk yàlla moom a ngay gis nam ca nekkee ngay gis te gis nga looy mën a xool lampe bii lu muy leer leer leer boo dee kuy xool leeruk yàlla leeruk yàlla moo dàqa leer leeruk lampe bi yahwi diyaa an ka da isam su hay su naa yax saa bi ku la sax si si naraat leer ak yàlla gi nekk ci biir làmp bii boo naan jàkk làmp bi tey gis leeru yàlla leeru làmp bi dootul feeñ fi yow leer ak yàlla gi mooy feeñ ci yow leeru doomu aadama yi dootuñu feeñ ci yow leeru yàlla mooy feeñ ci yow leeru asamaan mënta feeñ ci yow parce que leeru yàlla gi feeñ ci yow ci asamaan leeru yàlla gi ngay gis ci jant moo lay yit jant leerug yàlla gi ngay gis ci weer moo lay yit weer leerug yàlla gi ngay gis ci sa bopp moo lay yit sa bopp dootoo yëg sa bopp dootoo yëg mbindeef yi yàlla rek ngay yëg te moom ngay gis kon nit bu demee bay gis leerug yàlla dootu gis dara yàlla rek lay gis nit nag su gisagul leeru yàlla dootu du gis yàlla li fi yàlla def loolu lay gis foofu ngeen wutee dafa am lu lay wan loo xam ne moom wanu ko loola nag balaa nga koy am da nga am cheikhul murabbi boo xam ne la Sëriñ Tubaa waxoon ulaayika hum xawmu laa yax sa jëlisawum is yag subona muridina al sahad am na mu ne ñoo xam ne kuy toogaaleeg ñoom maanaam dañ lay fàggul ak texe ci seeni jataay waaye la ñuy fàggulee jaam bi ak texe ci seeni jataay wa yamhu anil qalbi raynan qad yudaanisu maawli xaasira an saw bi najaasa tilim bu nekk ci biir xol bàyyi ji bi sëy mu ngi koy wax sànq gis nga nit mën naa jàpp ci zaahir ba cëri set waye setuk cër yi mënut a setal xol ba waye tilima xol bi mom mën na tilima cër ya kon da ngay jëkk wo setal xol bi ba pare cër buñ seté set ga mën ta ne ba nga mën def la nga bëgg def mu baax waye xol bi mom su tilimee set ak cër yi loxo yi nga raxas sëlmu bi nga def sarax ndikoog galax ndikoog lépp biñ ko defé ba nopp taxut xol ba mën set yooyu moom mën set waye duñ setal xol bi waye ana xol miñu wax ne bu sété sata lépp bu tilimé tilima lépp bo gëmé ne yenente bi loolu mo wax dëgg la te gëm nga ne bu xol bi tilimé lépp tilim bala ngay jàpp raxasal xol bi soo raxasee xol bi kat bo jappo ba ne set nga set ga man fa ne de waye so gëmé ne limu wax dëgg la te sa xol sata gu nga jàpp ne set nga dédé ne jàpp na rek waye sata go set mom ci xol lay tambalé wàcc jaar ci jëmm moo tax comme ni mu ko waxee loolu mooy dunduk Baay Faal parce que Baay Faal saa su dëgmalee jëm ci yàlla ma nga tilim ma nga taq yére yaa nga woos lépp rek rappelé raflé parce que yitteeleku ko pour muy defar jëm moom li ko yitteel mooy mu defar xolom waaye Cheikh Moussa mi nga xam ne mooy jaarloo Baay Faal boobu fi mu war a jaar su ca noppee lépp loo doon gis mu ràpp ci moom loola dana yees ba jaaxal la moy xol ba la bëggoon defar xol bi nak su saté moy satal lépp set ga xol bi set nak xakka mo satal setal léppam moom moo setal jëmmam ba satalale ak njobotam ba ko ci xol nangul ko lolou nak moy yoonu Baye Fall motax mom bi mu ñëwé ci ak Baye Fall ci la wax parce que dafa am lo xamné manam jëfé ko rek mo lay jëri waye du xam ko sax mo la mëna jëri kiko xam te tok xam-xam ba du ko jëriñ dara jëfee ko rek moom moo lay jëriñ kon mel na ni xuma dégg nañu bu baax fi nga soññ waaye alhamdulilah mboolem taalibe yi xëy na bëgg a defaru rek moo leen tax jóg damay wax nag toujours am na koo xam ne moom bu xasee jébbalu boo yeboo bàyyi ko lam doon wut am na ko parce que dafa ne ci dëkk bi ñëpp ànd ak sëriñ bi mu bëgg a noppalu rek far ñëw rek bokku ne bokku na moom ba mu jébbaloo la am lu mu bëgg parce que li mu bëggoon mooy fexe rek ba bokk wala dafa nekk ci koñ bi kenn ku ne naan sama sëriñ moom it bëgg na buñ ne sama sëriñ mu ne sama sëriñ mu seet kenn kuñ naan sëriñ rek mu jébbalu ci jataay bu mu toog boo ne sama sëriñ nangam mu ne sama sëriñ nangam boo ne sama kër sëriñ mu ne sama kër sëriñ kooku lam doon wut am na ko jarul soññi gis nga ki jara soññi mooy ki nga xam ne dafa yëg ne moom am na lu manqué ci moom. mu jog di ko wuti am na loo waroon a xam xamoo ko am na noo waroon a mel menoo ko am na loo bëggoon a am amoo ko newu ci yow ba noppi gisoo ko ci sa askan te am foo ko gis kooku soo demee da nga xool ca moom na muy doxee na muy waxee na muy defee la ko may lam am su la ko wanee da ca góor góorlu doo ca dellu ginnaaw kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm di ñaan jataay bi képp ku fi teew rek yàlla na la yàlla defal fajuk aajo ci zaahir defal la ko ci baatil suñu sang yi nga xam ne ñoo woote bis bii yal na yàlla yàggal leen ci suñu kanam ñu yàgg ñoo teete ndax lépp buy dox te rafet rek ci ñoom la parce que ñun kenn ku ci ne da daje ku dajeek Cheikh Moussa rek te naxula dafa def ci moom dafa def ci yow liñ def ci moom kon ñu ngi leen di jaaraamal di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla may leen ak yàgg ak wér ci barke Cheikh Moussa Cissé baarakallah góor sëñ Ahmad am na solo lool jot na tamit yalla yalla barkel yokk zahiran wa batinan ngok li ku gis ki ko wax nga xamne ki ñu andal naxewul naxluul gone fanweeri at mba fanweeri at ak juróom di wax lu magam juróom fukki at daan wax war ngaa xam ne maga ko yar mag moomu doon yare nag dañu fi ndax lam fi joxe woon ba tey moom la ñuy di ko joxe kon li mu waxee ku amul dégg dégg nga ne yonent yàlla aadama alayhi salaam ba tey suñ borom dañul dañul di nangu di di yebal nit ñi ñu yeesal seen pas-pas ci lislaam ndax dëkk àddina ëllëg da ko bëgg nak te duma def lu koy maye serigne touba neena na xururun yaati naa ko bëgg aljana ëlëk ñepp ko bëgg jullit ñi ñepp bo leen laajoon li ñu gëna bëgg ci seen dund moy aljana waye nak la koy la koy maye mo dañ koy maras rek dem waye ndax dañ la ko may lam lay jural rek moy waro ci sa kanam borom ndax gis nga yalla limu yor joxewu ko ci ni la neexee yow moom ci ni ko neexee la koy joxe soo ci bëggee jot nag melal ni ko neex mel ni ko neex nag mooy xol bu set bi mu doon waxee léegi xam naa ki koy dégg dina poser question yu bari waaw ñii li ñuy wax lan la lan mooy xol bu set mën nañ la ko tënkal ci lu gàtt a gàtt mooy lu sa moroom am nga yéene ko ko lu yàlla def mu neex la fii la Cheikh si Cissé yóbbu képp ku mu àndal mooy tax nag duñu soxla daraay kenn lii mooy ak njullit piir su si nit ki yeggee yegg na ci xaay ak jullit ak nu mu mën a mel rek da dajeeg suñu borom ëllëg ak fu ko nit ñi mën a dëkkale rek suñu borom dana ko jox fayu ëllëg kon ñu bokk xam ne jullit piir xol lay concerné jullit pire defaru biir la waaye du yëngatu zaahir si bi ñu defaroo ci biir ndax dégg ngeen yonent bi salaa sallama dajeem ak saxaabatu yi ci kër arxam ibnu arxam loolu nekk nañ ci fukki at ak ñett wax nañ ne ñu doog a indi lii ñuy tuddee jaamu yàlla ci shariat waaye léegi duñ questionné ci diiru fukki at ak ñett yooyu lan moo xewoon ngur-ngur ji daan xew kër arxam ibnu arxam bañ ci daan dóor ay nit di leen ci rey di leen ci fitnaal duñu posé question lan la woon loolu bi weesoo la lii doog a am di te lu baax mu ngi baaxee ci loolu lu yàqu yi mu ngi yàqee foofa moo ngi mel ni rek tabax bi nga xam ne borom da caa sonn ci fondement bu dëgër ba ni muy raser rek doxin wa dafay jag waaye nag bu fekkee sonn ci lii mooy tax lu mu rafet rafet rafet rafet balaa muy nopp mu daal jullit ñu bari seen jëf yàqu na laata ñuy noppi ci jëf ja ñoom sax xam nañ ne yàqu na waye tayal beugul yomb yaakar aljala te doo ko defee ni yalla waxe rek mo len japp julit ni lay mel sëñ Ahmad jeri jeuf kaddu yi amna solo lol lol lol suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam naa wax ni su ko xaari doon jar danaa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.